lu tegtale am na ci ku dul jullit rekk mënul gàllankoor lislaam wante jullit bu farluwul nag mën na gàllankoor lislaam waaw ndax garanti yi ci biir lislaam garanti bi yàlla jox yonent bi ku nekk war nga xam ni boo tojul sa këru bopp keneen du ko mën a toj waaw mu xaw dellu ci li yàlla wax ci alquran masalu alladina xummilu tawrat ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا يلا مودال كي كو يهودي دي وانني امنا ньо خامني dañu leena a jëfloo li ci biir téere bi waaye nangu wuñu ko yenu téere bi moo leen gënal comme ni mbaam di yenoo sëfam cheikh alhaj malik radiallahu taala anhu wax wax ni li yàlla wax lenn yahuud ci alquran ak li yàlla wax leen ni nasaraan ci alquran nee na bu beneen yonent amoon rek musiba am ndax kon dana wax ci jullit yi lu ko ëpp ndax it lu keneen tàggane woon ba yàlla dal ci kawam ci alquran jullit yi sàggane nañu seen bopp lu ko ëpp ba tax na càggante gana wone ñàkk xam sa kilifa képp ku am kilifa gu toll ni Sayyiduna Muhammad am na càggante yoo xam ne soo ca àggee réere sa kilifa la pharmacie Al ñëw ngir saafara jàngoro askan wi bu ngeen jokkoowee ak pharmacie Al xeetu jàngoro bu ngeen mën a am ba ci listixaara bay rek ubbeeku génne cat ci sa yaram woote leen gaaw ci 77 417 70 فرمست المكتوب نور على نور